70 90 90 salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. na ngeen def. Jérôme jaar naa. maa ngi lay delloo jaar naka journée bi. waaye sant bu baax a baax. Euh, fan ngay tàmbalee ci journaliste bi ñuy xupp ak jéem a rey ndax la mu wax ci président Macky Sall wala ñu ne Bougane ak Mimi mën nañ dooleel Diomaye ba mu jotee ci réew wala Karim Wade bëgg dellu si bis bi ñuy wax ñay nekk candidat. waaw bi may njëkk mooy dama naan wàcc ànd. Mhm. ànd boo dem fekk ko moo wàcc àndam. yéen waaw yéen bokku leen ci yéen <laughs> yow yow yow yow <laughs> dama la fay baax a yaakaar ci la bokk waaye olof de ku fàtte ku la fal. Mhm. la lay follee ñëw. Mhm. gis nga Sénégal yi dañoo amoon benn respect ak benn cër. Mhm. bu amoon ci journaliste yu mag yi. ñu ñuy tuddee média yi borom télé yeeg ñi gën a ëpp doole ñi yaakaar ëpp leen doole. ba am fu tegoon. pour ñu nekk ci fooful ginnaaw askan wi mhm. waaye ñu ci bëree bëri seen patron de projet gëm alal gëm xaalis ànd ak Macky Sall mu leen di def loolu lu leen neex ñu nekk ci di def di def ko Macky Sall xam ne maanaam jeex na mhm. ayow mu tàmbalee suñu mbóot yi ñam nekkaloon daa teg jig noo tax fii ni daanaka am ñoo xam ne buñ ko dee toll tamit moom ñoo ma yam bu ma dee def Mm-hmm. ci yow mii ak ñi nekk ci yeneen si yu ndaw yi. Mm-hmm. ñooñu fii ba journaliste si dara yi te xam nga tax sa émission bi ku ne jiitu waxu leen pour Ousmane Sonko waxu leen pour Macky Sall yéen Sénégal leen ñor. Mm-hmm. à chaque fois da ngeen jéem a xool lan mooy xool Sénégal. effectivement ak lan moo tax démocratie gën a taxaw. ñee nag dañoo dañoo tardé Macky Sall am na benn bu mu def ci moom benn jikko bu mu def ci moom mooy moom li mel li mel ci ger ak maanaam boog defe naa nit ñoom mën nga koo jënd ak ku mën doon moom pour moom alal rek mooy jënd nit. Mm-hmm. moom tax na moom bis bu la jëndee bis boo demee ba bëgg a yàq deram mën naa génn wax ak yow. Mm-hmm. moom noonu la ko yàlla bindee. Mm-hmm. moo tax journaliste yi ñoo war a xam seen bopp am personnalité taxaw ci ginnaaw peuple bi di déglu Sénégal yi fukki at ak ñaari Macky yi lu muy def Macky lépp lu mu def di ci am ndam wala mu ci def di ci xor ñañal Sénégal yi def ko neex mën nga ne grâce à journalistes yi mag yooyu ñuy wax donc moo tax loolu légit parce que mm-hmm. ndax doo waroon nekk quatrième pouvoir bi war a taxaw ci askan wi xeexal askan wi woon Macky Sall ko lii ngay def ci kër du dëgg du yoon ñoom nag dañoo encaissé di encaissé di encaissé ba match bi final ñu bëgg a xëy suba bëgg a dal sawaay sawaay moom mi day wane ko day da leen wan ne maa ngi yéen a yam mm-hmm. man mi man mi a man mi leen attaqué ñun ñoo yam dama leen daan jox xaalis ngeen Sénégal yi soxla Sénégal yi mhm. ma bindal ay milliards yoo xam naa maa liggéey naa nga mag maa askan wi lii laa fi defal dund bu seet wàññi naa ko te li may li ngeen may wax loolu dara amu ci man lu ñu yokk maa ko yokk mhm. kenn mënu ko fi defee te man la yooyu yëpp Macky Sall xam na ne moom moo ko def mhm. fexe ba liñ sëyoo de Sénégal yi dañuy jéem a ñëw di jéem a defar di jéem a rafet di jéem a lu ñu neex ndax nag lii maam nguur gaa ngi leen di jox alal li ñu def lu leen yàq Macky Sall nag daa dem ba xam moom nguuram jeex na te ñii bëggu leen see bàyyi ñoom it ëllëg ci biir Sénégal dafa ne baax lañ ay roykaan lañ fekk ñu yées Macky Sall ñenn ñi yéen nag ay référence ngeen yéen site yu ndaw yi ñuy tudde nii yéen ay yu mag yi hmm. yéen lu Sénégal yi déglu yéen yéen ay nag léegi léegi Sénégal yi li ma la bëgg a laaj léegi li ma la bëgg laaj li ma la bëgg a laaj mooy nga baal ma li ma la bëgg laaj mooy. est-ce que tey est-ce que tey nit ci liggéeyam war na def jàngat. ah euh, soo fa jógee jàngat googu loolu nga xamante ne yow def nga ko ci sa liggéey ñu la fay menacer que xuppe ne danañ la lii dana la laa alors que yaa nga def jàngat yoo xamante ne yow yow da ngay dal pouvoir dal opposition dal ku ci nekk mais pourquoi bi la yoon mu def jàngat te li mu wax lépp su nekk loo xam ne dañ ko inventé loo xamante ne lu am la président Macky Sall moom la ñuy mbedd ci Ndakaaru moom la ñu tuddee mbedd ca ca ca moom la ñuy tuddee ay ay ay bâtiment ca Diamniadio président Macky Sall moom la ñu jabaram moom la ñu hôpital mais loolu nekk loo xamante ne dañ ko inventé lu am la donc nit lu tax nit di ko jàngat di ko wax ñu koy ñu koy ñu ko naan da dangaa dangaa dangaa farak dangaa léeg dangaa léeg dañ lay danañ la raj dañ la doon nañ la mais loolu lan moo ko lan moo ko fi jar xam nga Babacar Fall man am na moom moo xam muy Ousmane Sonko wala Macky Sall ñoom lépp loo ñëw lam ca war a wax dana ko wax waaw pourquoi pas man Babacar Fall rek mooy journaliste yi war a wax loolu Macky Sall journaliste yëpp la xëy suba xas leen toroxal leen ci digg Sénégal ci diggu àdduna bi yëpp lu tax Babacar Fall doo nga mën wax ñu ci des yi maam au lieu que wax ci waaye affaire Babacar Fall lañu man seen maa ko sa photo la teg teg maanaam ba Babacar Fall pourquoi pas ni doofi loola ak li mu def ci musiba lu tax kenn ko ne ñoom ñooñu personnalité yooyu ñuy wax naan ay personnalité yu mag lañ lu tax ñooñu def ñu comme Babacar Fall ñoom it maanaam xam nga Sénégal kenn mën ko wax lépp ndax maanaam Macky li mu téye Sénégal jàpp na maam maam Sénégal boobu ay nit ñoo xam ne dañ leen war a ger rek ñoo nekk képp ko xam na nii war ngaa ëmb kàddu war nga rek man Sall moom jàpp na moom ger na dong bu la ko defee ba noppi te ñi ëpp la noonu lañ demee ñi war a xeexal Sénégal ci bëre bëri seen lu nekku ci Sénégal yi da ngay gis ku fii di xeexal Sénégal pour ñu jekk ko téléphone ah teew ko ay millions wala ay milliards teewal ko ci mu ku mel ne nu mu tudd kii doon ci kii doon wàllu dund gi lu posé woon na candidat sax xaw ma Mamadou Mbodj asko seen xaw ma damay fàtte turam yi waa jooju xoolal xoolal lim naan xëy naa day xeexal dund kan ci kan yooyu yëpp moo ko doon xeex kan ci keroog ba ko Macky Sall wooye kii ca la noppi saaba kii askan wi ñoru ko li askan wi ñor mooy yéen ñii xam nga yéen xam naa ne xewu leen seen bopp waaye gën leen a góorgóorlu xam ne yàgg-yàgg biit naa wallaay yàgg-yàgg yéen la Sénégal yi déglu Sénégal buy soppeeku yéen buñ demee ba Sénégal tàmbali soppeeku yéen respect bi ñu joxoon journal ci looy yéen ñii lañ koy jox ndax fii nii fii day metti noonu ndax fi ngeen nekk tax fi ngeen nekk yéen moom mooy jaaxaanaay surtout Sénégal baax yéen li leen yitteel mooy Sénégal baax ñee mm-hmm. nag dara jëru leen lu dalal Macky Sall jënd na journaliste yi mag yëpp loo tax fii nii kenn du ko moom kenn du ko jëm naa ni Macky Sall xam na ne da leen doon ger ñu dem ba ci ba mandat jeex mu leer na kon élection yi ñàkk na ko ñàkk na lépp ñoom ñu bëgg a génn ba koo ba koo ba koo isolé nag ba koo ba koo bàyyi moom doo xeex bi day da leen wax ne maa ngi yéen ñoo bokkoon ci liñ doon toroxale Sénégal yi def li ñu mhm. neex maa ngi yéen a ko àndoon liñ dem ba affaire yi jeex na ngeen ma ko ngeen ma ko bàyyee mhm. te soxla moo la dara mhm. it depuis six mois ngi nii conseil ministre conseil des ministres amul yaa ngi dégg mm-hmm. depuis six mois la ñu ngi nii conseil des ministres amul mm-hmm. réunion rek la ñu def man mm-hmm. ngeen mën naa loolu depuis maanaam keroog ba Amadou Ba demee France di def maanaam congrès maanaam congrès boobu dajeeg tubaab ba tey nii sur maanaam ministre sa ministre Macky Sall yi ñu ci ëpp ñu ngi France ba rek kenn ñëwagul kenn nekkul senegal ñoom ñëpp xam nañ ne ñoom ñëpp kenn ku yaa ngi dem ci àll bi seen xam looy rawale ñii nañ ñi xam nañ feneen gàddaay nañ ay benn benn ngay gis nii ñuy génn ci dex yi nii waaye ñii te kenn nekkul Sénégal Sénégal lañ bàyyi nii rek dugal leen ci benn débat ñuy nii waaye ñoom pare nañ bañ ñoom ñëpp jël nañ seen këbët pour dem seen yoon kon senegal yi ñoo war a am fulla am fayda xam ëllëg ci biir kañ lañu fal mu jiite réew mi. mën a bàyyi démocratie mu taxaw bàyyi journaliste yi ñu nekkal ci seen askan wi journaliste yi féeg ñu ngi féete pouvoir bi rek mhm. maanaam loolu loolu loolu baaxul ak mhm. foo ñoom dañuy jéem a jaayante askan wi lu métti métti ñu féete askan wi bu rek maanaam président bi fi nekk du jéem a napp kenn du jéem a mhm. tiital kenn du jéem a xoqatal kenn day xam ne Sénégal ñun ñoo ko bokk waaye buñ bàyyee journaliste yi gën a nekk Sénégal ñëpp nekk ci ginnaaw Macky Sall di ko xalamal di ko mag di ko lu ko neex loolu loolu ban ban ban réew lañ nekk loolu mu ta dox mhm. te ñoom ñoo bu Macky bu Macky Sall jàllee ensemble jàll mhm. leneen jàll di ci ñetteel bu mooy presse presse mooy yor am réew daanaka xibaar yi wér te wóor wala li xew ci Sénégal yëpp ci par presse bi ñoo ñu ko dox kon waruñoo féete ak Macky Sall waruñoo foo féete ak pouvoir dañoo war a féete ak askan wi d'accord ak lu metti metti merci merci beaucoup boo féete ak moom day metti lool mhm. da nga dégg da ngaa far da ngaa dégg da ngaa ah, far ah, loolu de moo jaaxal ñëpp loolu de moo a ñëpp li nga xamante ne loolu askan di xalaat di wax ñoom loolu la ñuy jéem a yëkkati di ko laaj waaye politique yi di def jàngat suñ ko defee ñu leen di dal xeer man loolu c'est ce qui euh, vraiment ah, suñu loolu faral keneen ak keneen ndax la te li askan yi wax moom ngeen di nettali mhm. li askan yi soxla moom ngeen di wax ñoom boo li si askan féete la bis boo féetee ñu la nga faral mhm. boo féetee Macky Sall la xam nga ne leer na la Macky Sall moom jàpp na àdduna lépp ger la mhm. te nit ñi dañoo war a weesu ger alalu ger dañ ko war a teg fële jéem a jubbanti Sénégal tabax Sénégal mhm. mu nekk Sénégal gu naat Sénégal koo xam ne nii ñëpp koy bokk kenn du tiit kenn du jàpp lépp lu waay def journaliste yi am odaaru génne wax ko mhm. Macky Sall tey bu ñu doon wax ay jikkoom ak ko mu leer nañ yaakaar naa Macky Sall du tala tudd fi ay milliards kii ay defar naa ko naa ki naa ko kon génn Sénégal bu yàgg Mm-hmm. waaye lépp journaliste yi la waaye yéen ñu ngi leen encourage yéen journaliste yi ñu tuddee yu ndaw yi te yéeneen ñu mag ñi gën leen a gën a góorgóorlu xam ne askan wi ñu ngi leen di déglu ñu ngi leen di bàyyi xel parce que ci day dem léegi képp koo xam ne nii da ngaa jaay sa góor nag Macky Sall dana la yóbbaale te Macky Sall moom li war a am na ko pare nit nag dafay dañ si da sa sa dignité dese sa góor dese sa fulla ak sa fayda mm-hmm. di xeexal askan wi ndax askan wi rek moo am taxaw ci ginnaaw askan wi rek yàlla moo lay jàppale. Macky Sall jeexal na ñi mu àndal jeexal nañ njuuj njaaj yeeg lii lépp jé guddalu jël la rek. Mhm. na ñëpp jëli seen i carte d'identité ku jëlagul sa carte d'identité nga dem jëli ko. conseiller mhm. vingt cinq février ñu faxas lépp luy système bi fi nekkoon. d'accord toroxal nañ Sénégal tàcc nañ alalu Sénégal ay paaki màggat yoo xam ne nii dara ñoru leen loolu dalal xooluñu seen doom xooluñu seen i sët xooluñu lenn torox boobu nag. na yem ci ñoom Sénégal day baax incha allah. merci merci beaucoup merci merci merci euh, merci pour les soutiens parce que maa ngi gis message yi vraiment ñi nga xamante ne noonu lañ koy euh, noonu lay noonu lay wàccee ah euh, am na ku ma envoyé message ah di ma wax naan xëy na gaa yi ñoo ngi soog a bàyyi xel mais Babacar Fall defoon na benn chronique sur l' Sonko et les vingt quatorze milliards defoon na chronique itam ci mbiri Sonko ak Mamba Niang wàllum diffamation bi ah waaye troisième mandat itam bokkoon na ci li nga xamante ne moom yàgg na ko ci yàgg na ko koo xeex donc nee na ay position yoo xamante ne politiquement moom yàgg na ko daal di euh, wone ak euh, joxe xalaat wa nga xam ne moom la ca daal am merci aussi pour contribution boobu yu mel ni itam da ci baax sénégalais yi da ko gën di euh, xam salaamaaleykum waaleykum salaam